وضاحي في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي سفر ñaan suñu borom ko aar ko te guddal aw fanam may ko wér gu moom ba àggale mboolem naa li nga xam ne yéen yéen a ko liggéeyal islaam yéen ko liggéeyal maama Cheikhul Khadim mel ni ñëwaat nañ ci seeni jotaay yi nga xam ne baaxoo nañ ko amal ci fan yi màggal gi ngir di ko yóbbuloo mu nekk ab ab bind bu ñuy yóbbuloo ci màggal gi ñëwaat ci benn tom boo xam ne danañ ko ñu ngi ko tuddee al azamat al muridiya tijaaha al azamat muy muridi muridi muridisme eh, ak jafe-jafe yi nga xam ne moo koy xaar ci kanamam nan la ci war a taxawe ñu war koo ànd suñu mbokk Serigne Abdou Khadir Ba di ku xam koo xam ne nekkatul ku ñuy présenté ak di ko xamle ci jataay yu mel nii xam nañ ko ci xam-xamam bu sell ak làmmiñam wu leer ñu war ko ànd ak ma waxtaan wi mel ne ni ñu war a tënkalee waxtaan wi danañu andil lenn ab tënk ci xamle lan mooy al muridiya bu ko waxee mooy lan lan mooy ak bu ñu noppee leeral lan mooy jafe yi nga xam ne moo lan mooy asma buñ ko waxee kiris mooy lan. ak yan xeeti crise yi nga xam ne am na ak nan lañ ci mouridisme war a taxawee mooy ko bokk na ci asamaat yooyu rek mooy lu jëm ci crise boo xam ne crise sanitaire la wala crise boo xam ne économique la wala crise boo xam ne euh, wàllu jikko yu rafet jikko la ak yooyu yëpp ban ban taxawaay la ci mouridisme am xam nañ ne Serigne Touba Cheikhul Khadim radiyallahu anhu bi muy ñëw ay jafe-jafe la fekkoon mu ñëwoon indi ci ay solution léegi nag jafe-jafe yi nga xam ne mooy xaaraat mouridisme yi ñëwaat ci kanamam nan la ci murid yi war a taxawee yooyu dana jafe-jafe bu ne dana ko tudd jéem a andi tamit proposition yoo xam ne ay solution yoo xam ne xëy na buñ ko buñ ko taxawee ëllëg mën nañ mën nañoo bañ a andil yenn jafe-jafe. mën nañ caa génn ci anam gu gën rafet. kon xam ne dañu guddal waaye dañuy jox sëñ Abdou Khadir. moo dugg ak ñoom ci tomb bi bisimilah sëñ Abdou macha allah jërëjëf sëriñ Abdul Muttalib noo ngi lay sant bu baax ci kàddu yi jiital yooyu di la ndokkeel te ndokkeel. murit yëpp jullit ñëpp njabootug sëriñ Tuubaa yëpp ci bis bu màgg bi ñu dëgmal ëllëg ak weer wu màgg wi nga xam ne mooy weer wi sunu boroom defalee sëriñ bi la ma doon sàkku ci boromam ndokkeel geek ziar beeg nuyoo bi yëpp ñu koy tàmbalee ci kilifa ak yoon wi <coughs> di a Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi te wér di sant bu baax waa muqaddamatul xidma ci taxawaay yu am solo yi nga xam ne danañ ko def saa su waaye rawatina bu période bi ñëwee ci loo xam ne day dundal ruux yi loo xam ne day dundal xel yi ci waajee ko bisub sëriñ Tuuba bi su ko defee kon ni nga ko waxee li nuy si waxtaan wi nuy seq mooy rek kon ni nga ko leeralee leer na mooy yoonu murit diggam ak dëkk yi nga xam ne maanaam dëkk mooy li tubaab naan défi wala ni mu war a jaamaarloog li tubaab naan crise mooy azamat crise yi nga xam ne moo fi moo fi mooy am donc loolu moo war a nekk euh, mawdon bi wala sujet bi loolu nag jàpp naa ne ngir man cee wax lu yomb la ndax ngir boo bëggee àtte tey dangay dang koy def li arab naan muqaarana maanaam da ngay comparer dellu ca démb ñëw tey soog a jël perspective maanaam xalaat ëllëg kon lan moo war a lan moo war a am te loolu buñ ko defee dañuy gis ne eh, d'abord yoonu murit ci boppam day loo xam ne moom muaalaja azamaat moo ko fi indi woon maanaam résoudre ay problème ci ay crise yu mas a am ci àdduna eh, ci misaal man nga ne crise xew na ci domaine yu baree baree baree bari yoo xam ne sëriñ bi lim indi daf cee am ay taxawaay yu am solo yoo xam ne indi na ci saafara sos ci méthode boo xam ne mën na sa cee sukkandikoo saa su ne ngir saafara jàngoro ju mu mën a doon wala ngir saafara crise bu mu mën a doon exemple rek boo xoolee yoonu murit li ko sos li sëñ Modou Lamine bind mooy lim wax ne am na ko ko nettali ku wóor ku ne sëñ bi moo ne ko bi mu nekkee ci Mbàkke Kajoor doon liggéey liggéeyam boobu jàng ak jàngale baayam jóge fi mu doon daara ja dafa mel ne dafa am ndigalul changer méthode bi nga xam ne ci la doon ci la doon defare wala ci la doon yare mooy loolu ñu wax ne yonent bi moo ne ko rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi darsi nga xam ne kon foofu tarbiya bi dars xewoon na bari na ñu ko doon def mel na ne moo nekkoon challenge bi gën a kawe ci ku ñuy woowee kilifa diine wala boroom xam-xam ca jamono jooja waaye ci biir loolu nag am na dérive ci amoon yoo xam ne loola crise la woon dérive mooy lan mooy mooy ixlaas amoon nañ ci jafe-jafe ci yu bare bari mooy nit ki daan na sàkku xam-xam daan na dem ba nekk au sommet ci xam-xam waaye du tax dëgg-dëgg mu mel na mu war a mel ca diggam ak boroomam nit ki daan na doon boroom alxuraan maanaam mokkal alxuraan ràññeeku ci lool waaye daan jëf jëfin woo xam ne alxuraan gërëmu ko nga xam ne sax dañ daan organiser jëfin woo xam ne du jëfin wu alxuraan gërëm ngir prouver ne lii mooy mooy wane ne yow mokkal nga alxuraan boo xoolee ci njëlbeenu jazaaw shakur boobu sëñ Moussa Ka di way di nga ko ci gis mooy ñi laawaa nag xeet yooyu ñu daan def nga xam ne donga yi gën a mag kaang yi ñoo ko daan def ak ak yeneen i mbir yoo xam ne fóore yi ñoo ko daan def nga xam ne sax ñi ci ñi nga xam ne sax ñu sàmm ñu ñu xam lañ da nga ciy gis ne seen objectif bi gënoon a rëy mooy nañ dem jege buur nekk conseilam wala xeet yu mel noonu donc kon ci wàllu xam-xam rek wala ci wàllu dundiin dundiinu yàlla amoon na benn ay dérive yu ci amoon loo xam ne dafa mujj doon crise loolu bu amee sëriñ bi lim indi dafa mel ne kon am na changement de méthode boo xam ne war na koo indi ci crise bi xewoon ci jamono jooju ngir saafara ni nga xam ne noonu la yenn yenn doomi soxna yi daan daan daan doxee ci wàllu xam-xam ak ci wàllu alxuraan ak ci seen wàllu comportement kon foofu dangay gis ne bu jamono tollee foofa it loole sëriñ bi indi woon nga xam ne daf koo jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay mel ne kon jamono day soxlawaat mu ñëw kon dafa mel ne yoonu murit bi mu ñëwee nag défi yooyu walla crise yooyu dafa mujj doon ay défi ci moom dafa bari waaye da ngay xam ne rek maanaam euh, base bi li ci ëpp solo li ko tax a jóg rek mooy sëriñ bi nu muy fexe ba defar doomu aadama donc kon moom lim yoroon ak yeesal la goo xam ne dafa ñëw ci ngir yeesal lislaam yesal nag buñ ko waxee kon mooy dafa mel ne am na lu ci bokkoon luñ ci génnee am na lu ci bokkut lu ci dolli ko yeesal mooy rénover su ko defee li ci bokkut nga génne ko li ci bokkuteñ génne ko nga indiwaat ko rangé waat ba mel na meloon li euh, diinun siwa islaamihi laa yuhmadu indal ilaahi wa bihi nu jaddidu kon tajdid googu ba mu ñëwee nag jël méthode bi nga xam ne mooy tarbiya bil himma kon kooku mel na ne ñëw na ngir saafara benn crise bu fi amoon kon day mel ne bu ñu waxee yoonu murit bu ñu waxee yoonu murit face aux crises maanaam euh, diggam ak wala boog ni muy jaamaarloog crise yooyu day mel ne kon da nga naan yoonu murit ci boppam sax looloo ko fi indi woon mooy saafara crise yi fi amoon xëy na nag crise yooyu nag ba ca ëpp solo mooy fexe ba nit ki nga defar xolam bu xol bi defaroo rek leneen loo bëgg a defaraat dana dana dana yomb ci moom ndax boo xoolee yonent yi jiitu woon ñoom ñëpp dañ daan fekk benn crise bu mag a mag mag ci seen communauté wa is qaala llaahu muusaa li xawmihi wa is qaala euh, nuñ koy waxee ni alquran di wax rek nga xam ne yonent bu mu tudd la muy wax ak aw nitam mooy yaa xawmi abudullaha maa lakum min ilahin xayru nga xam ne foofu kon amoon na crise wéetal yàlla bu ma sa ci àdduna boo xam ne yonent bu ñëw loola ngay yeesal ci saw askan muy doon continuité ndax geneen geneen geneen geneen jubadi gu am wala wala leneen beneen crise bu am rek lee mooy base bi mooy ñàkk gëm yàlla wala boog imaan bu woyofee rek yu baree baree bari daf la yomb Seydina Shuayb bi mu ñëwee <coughs> moo aw nitam am na lu leen fekkoon euh, ñuy ci wàllu commerce am na donc loolu tamit crise la bu xewoon boo xam ne dafa mel ne suñ borom indi la ko méthode boo xam ne moom moo ko saafara donc yonent yooyu ñooy continuité nit ñu baax ñi ba ci Serigne Touba yi nga xam ne moo fi sos yoon wi nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy waxtaanee nii ndax al ulama warasatul anbiya ni ñu koy waxee. léegi nag moom bi mu ñëwee ngir saafara loolu ngir defar nit ci biir lool nag dafa bari yu ko gaar yu ko gaar yu baree baree baree bari yoo xam ne benn bu ci nekk bu ñëwee am na ci ay taxawaay am na ci ay taxawaay donc kon euh, pour daaneel foofu rek. suñ waxee yoonu murid rek mooy woote Cheikhul Khadim bi nga xam ne bi mu ñëwee dafa am lu mu fi fekkoon bëgg a changer loolu mu doon loo xam ne rek du loo xam ne stratégie la wala xalaati boppam waaye day loo xam ne ndigal la lu bàyyikoo ci yàlla jaar ci yonent bi mu appliquer loolu ba nga xam ne yàlla def na am na ci résultat léegi nag leneen li nga xam ne moo moo moo moom la jaamaar lool mooy ay crise crise buñ ko waxee rek kon day mel ne mooy loo xam ne dafa ñëw bi mu ñëwee nekk loo xam ne dëppoo wut bëggu-bëggu nit ñi léeg-léeg wala mu doon loo xam ne xëy na sax bakkan na koy jur ba mujj nekk benn benn dommage maanaam nekk loo xam ne lu mujj mett lay doon ci ñoom ba nga xam ne day soppi dundin wi day soppi dundin wi ci misaal fii may wax ak yow mel na ni am na crise bu ñu nekk boo xam ne moom la ñuy wax crise sanitaire boo xam ne bi mu ñëwee gis nañ lim def ci àdduna gis nañ tamit li mu soppi ci lu baree baree bari waaye loolu bu mu ci mën doon rek day mel na kon sëriñ bi moom dina fi indi loo xam ne dina jaamaarloo crise boobu te dina ci indi ay saafara donc kon ci tënk rek ci tomb bu njëkk boobu mën naa ko yemale foofu ba beneen laaj ñëwaat incha allah su ko defee ñu continuer ci façon crise yeeg euh, yu ni mel. jërëjëf Cheikh Abdou Khadir ci leeral gu am solo googu ci lan mooy ak murit mm-hmm. ak leeral gi nga leeral ne. ndekete saafara loo xam ne crise bu bu teew la ci jamono mënuñ ko saafara lu ma da nga dellu ci démb mhm. dellu ci démb xool crise yu mel noonu nan lañ ko nan la ko waa démb saafara woon mhm. nga leeral nga tamit ne Seexul Xadim bi mu ñëwee ay crise yu bari la fekk mhm. waaye li mu njëkk def mooy changé méthode bi noonu bi mu fekkoon nga dañoon jàngal rek mu changé ko andi méthode bu gën a bu gën a dëppoo ak jamono bu gënoon a soxla te mooy andi Eh, jàngal nit ñi yar leen ci himma. Mhm. ci ixlaas. am lu mhm. wéetoon la. Mhm. leera nga ñu tamit lan mooy muridis bi ñu ko waxee mooy lan muy tarixa la boo xam ne dafay ñëw ngir yeesal. yeesal ay ay jafe-jafe yoo xam ne ci jamono. waaw léegi nag bu ñu ñëwoon ci jamono ji crise bi nga xam ne moom mooy crise sanitaire bi am nii ci jamono. nga xam ay at ñaar at yëpp daanaka moo lëmbee adduna bi. nan yan xalaat nga jàpp ne moom la ci muridisme war a taxawee. ba man ba ëllëg daal du ñu benn jafe-jafe. macha allah. su ko defee gannaaw wax nañ ne kon crise yi nga xam ne mooy jàmmaarloog yoon wi bari na tudd nga ci crise sanitaire kon mën nañoo leer foofu crise sanitaire day mel ne mook àdduna ñoo àndandoo maanaam rek mooy loo xam ne dafa ñëw gaar wér-gu-yaramu doomu aadama yi léeg-léeg mën na nekk doomu aadama mën na bañ a doon doomu waaye daal loo xam ne dafay ñëw indi ay gàllankoor ci wér-gu-yaram su boobaa loolu mën naa indi problème boo xam ne dara mën naa bañ a doxati te loolu yàgg naa am ci àdduna waaye bu fekkee ci lislaam la ñuy wax rek boo jëlee ci jamono yonent bi amoon na luñ naan mbas bim ñëwee wala bokk am na daal xëy na tawat yu fa amoon yoo xam ne ba ñëwee yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na orientation yu ci joxe yoo xam ne ca loola rek ca la yoonu murit jaaraat ba ko gaaraat ci xeet yu mel noonu yëpp noonu la ko saafaraa bu ñu xoolee ci jamonoy Cheikhul Khadim mel na ni bi mu nekkee njaareem vers les années dix huit dix neuf ba mille neuf cent vingt wala vingt et un dig digal yooyu amoon na crise sanitaire ma na am kon mbir bu xewee pour nga am ci position wala nga joxe ci xalaat da ngay xool démb ndax amoon na boo xoolee démb comparé ko ak tey boo ko comparé ak tey nag soo nga xam perspective maanaam ëllëg xëy na lu muy jur te buñ xoolee ci yoonu murit lu mel noonu mas na leen a gaar ci jamonoy sëriñ bi ci njaareem amoon na peste bu fa amoon boo xam ne la ca sëñ bi wane rek mooy nu xam ne yu mel noonu bu amee ñaar lay nekk mën naa sabab sababoo ci nattu boo xam ne sunu borom daf ko wàccee ci jaam ñi ngir yokk seeni daraja mën naa sababoo tamit ci mooy goo xam ne jaam ñaa ngi koy mooy seen borom sunu borom wàccee ci ñoom natt boo xam ne dana tax ñu dellu ginnaaw dafa mel ne loolu lañ ci loolu lañ ci loolu lañ ci jàngee ndax day mel ne sax bi loolu xewee bari na ñoo xam ne ci murid yi lu mel noonu dal na leen waaye bi mu leen dalee tamit li leen sëriñ bi doon fàttali mooy dellu ci yàlla mi nga xam ne moo fi indi tawat ji xam ne moom mooy fi wàccee saafara si mooy wàccee saafara ba nga xam ne day mel ne ci liñ sax ku mel ne sëñ Mbay Jaxate mas na ko cee defal ay bayit yoo xam ne donc day mel ne bayit yi da koy wan ne bu la neexoon mbas mi jeex ci misaal am na boobu loolu crise sanitaire la woon bu amoon boo xam ne gàllankoor na lu bari ci àdduna mais sëñ Mbay dana ko waxal nag ci mbas mi sa nit ñaa ngi jee tinul ñëpp yow boo tinoo yàlla tin te ab sàmm bu ab sàmm ne cell jur gépp jee te jur gépp jeexee lu muy sàmm kon ne ba mu waxee daal joriku ba mu wax ba kii sëñ bi daf ko ci tënk la ko sëñ bi xamal rek mooy da ko xamal ne yëf yi moom mbirum yàlla la moo xam ne moo ko fi wàcce te saa yu bëggee ma dem dana dem donc kon lu mel noonu su amee sëriñ bi am ci taxawaay bu mel noonu buñ demee ba jamono mujjug jamono lu mel noonu amaat tamit dañuy xam ne kon la fi woon rek mooy indiwaat mooy indiwaat solution te loolu buñ xoolee ki nga xam ne moo fi nekkal Cheikhul Khadim di sëriñ sëriñ Mountakha yàlla na fi yàgg loolu te mel na ne biñ demee ba duggaat ci situation yi mel noonu mooy crise bii ngay wax mooy crise sanitaire muy loo xam ne euh, xëy na ci Chine lañ ko njëkk a seetloo fu mu amee waaye dafa mel ne ñoom ci seen bopp sax dese nañu dese nañoo comprendre lu mu doon dëgg-dëgg te it ñoom ñi nga xam ne ñooy tubaab yi nga xam ne lu bari xëy na ci àdduna yàlla may na leen ci jaaxal jaaxal na leen ba nga xam ne amuñu ci benn saafara te da ngay gis ne seeni seeni analyse ak seen seen seeni seeni seeni gëstu yiñ ci def saa su ne day soppiku tey da ngay ñëw ñu ne la masalan da ngay def da ngay da ngay dem ñàkku ji boo ñàkkoo boo defee ñaari dose boo nangemee dina wér ñu jekki-jekki ne déedéet yeneeni recherche wanewaat ne ndeket mën ngaa def sax troisième dose ñu tàmbale ci loolu ba bay xalaat ne sax quatrième dose man naa am ñu jekki-jekki ne la li ci muslim mooy da ngay jëfandikoo masque yi waaye yàgg ñu la la masque kat am na yoo xam ne mënta durer lu ëpp quatre heures de temps kon bu ko jëfandikoo wala defee ko ni wala ñu ne la sax bu fekkee barab boo xam ne fi nga nekk dafa yaatu dafa dafa dafa dafa aéré foofu wu takk masque fi ñu ko soxla mooy donc bis li ma ci bëgg wax rek mooy ñoom ci seen bopp mënuñu ko mënuñu koo saafara bis bu ne ñu wax la ci lu bees bis bu ne ñu weddi lañ waxoon démb indiwaat leneen dañu jekk-jekk ne la am na lo ne wala ñu ne la ñi âgé lay gën a sonal wala yu mel noonu jekki-jekki gis luy wane ne loola am na lu ko dindi ñu ne la première vague deuxième vague ba mu yàgg ñu la troisième vague donc yooyu yëpp ay hypothèse la ak ay xalaat yoo xam ne ay recherche scientifique xëy na waaye saa su ci nekk nekkul ne toujours rek lañ la cay wax mooy moo mooy li exact loola nag su amee ni ma ko waxee léegi dafa mel ne ñun am nañ ci am nañ ci solution am nañ ci saafara saafara si mooy bi yëf xewee dafa mel ne dafa am saafara soo xam ne zaahir la ak soo xam ne baatin la bi yëf yi xewee gis nañu ki fi toogal sëriñ bi muy sëñ Muntaxa li mu njëkk a def mooy dafa joxe ndigal ñu xam ne tawat ji yàllaa ko fi indi na ko sëriñ bi waxee woon rek ca euh, bee ma léegi buñ xamee ne tawat ji yàllaa ko fi indi kon la njëkk mooy nañu fexe ba ñaan yàlla lu ko fi jële ndax boo xoolee ci tawat ji am na lu ci rax loo xam ne luy wane ne nit ñi waruñoo dajaloo man la tawat la joo xam ne day bañ ab dajaloo te xam nañ ne lislaam moom bari na ponkam yoo xam ne sax boo koy def danga koy def ci ci dajaloo lu mel ne aj Màkka ci dajaloo la lu mel ne julli ci dajaloo la nga gis na yooyu yëpp ci àdduna bi à l'échelle mondiale ñu baree baree dañoo mujj sax bàyyi yooyu léegi nag foofu it lañ cey jàngee gis nañ euh, ni ni nga xam ne moom la solution bi yoonu murit indi mooy Cheikh Mouhamadul Mountakha daf ñoo xamal ne li mu indi ci kaw suuf te bàyyi ñu fi ni ko sëñ Saaliw daan waxee mooy jaamu yàlla donc kon jaamu yàlla moomu moom bakkan warta fekkee fuñ koy bàyyi xëy na ni nga xamee ne moo moo moo fi sës mooy lan nañ seet méthode boo xam ne danañu jéem a eh, ni ko tubaab yi waxee vivre avec le virus ndax ñoom tubaab yi loolu lañ créé dañoo seet méthode yoo xam ne danañ ci mën a dund ak virus bi mooy lan mooy ñu fexe ba organiser seeni seen secteur yëpp boo demee ci banque yi dañuy limiter nit ñi ñëw boo xoolee transport bi dañuy limiter am nuñ ko organiser restaurant yi donc ñoom yéen li leen ñor lépp lijjanti nañ ko ba ci suñu état yi nga xam ne ñoo ñu yilif tamit ci ci ci ci wàllu àdduna gi bon même Sénégal da ngay gis ne façon méthode boobu lañ jël waaye nag dafa mel ne foofa diine moo amoon jafe-jafe kon nga gis ne yoonu murid moom dafa jóg ngir défendre l'islam ni mu défendre l'islam mooy yoonu murid ñoom ñoo taxaw ne jàkka yi duñ ko tëj jumaa yi duñ ko tëj waaye nag ni nga xamee ne noonu lañ créer ay méthode ci seen barabu liggéeyukaay yooyu ak seen secteur yooyu méthode boobu ñun tamit nañ ko créer ci suñu jaamukaayu yàlla bi ci nga gisoon sëñ Muntaxa jox ndigal Muxaddamatul Xidma luñ def mooy ajjuma buñ xoolee le minimum bi l'islam recommandé mooy fukki nit ak ñaar jëm kaw bu fukki nit ak ñaar yi amee te am nañ ko ci personnel bi fiy liggéey su boobaa nañ taxawal julli juróom Euh, euh, jullik ajjuma plutôt bu fekkee julli juróom tamit ñaar ba ñett nañ ko niñ ko waxee ci téere fuqahaw yi mooy mbooloo su boobaa tamit nañ ko jullee noonu waaye tëj moom kenn du ko xalaat nga xam ne kon foofu ak dellu ci yàlla moom solution boobu la yoonu murit indi ngir ñu saafara crise sanitaire boobu yemu ci waaye tamit delluwaat ci mbindum cheikhul xaddim nga xam ne kon moom mooy sunu source mooy sunu delluwaay mooy lan digle na ay xasida yoo xam ne Euh, sëñ Touba daf ko bind ci contexte yoo xam ne dafa dëppook lu mel nii xasid ak wakaana xaqan xasid ak euh, yaa rabbi bil Mustafa xasid ak euh, matalabu shifaa yi nga xam ne yooyu yëpp day dëppoo contexte bi mu digal ko taalibe yi ñu koy jàng loolu lépp ci méthode delluwaat ci yàlla la ñu xam ne moo fi indi tawat ji waaye ba defee loolu ba noppit bu ca yemoon sax mu baax waaye tamit da caa dolli loo xam ne moo tolloog sunuy xel mooy méthode ésotérique maanaam Euh, loo xam ne zahir la te mooy lan mooy génnee alal alal ju baree baree bari def ko participation pour crise sanitaire boobu jóge fi ba noppi joxe ndigal ci ne nañuy respecter mesures yi nga xam ne moom la médecins yi recommandé donte sax ñoom liñ lay wax mën nay wuute waaye euh, ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom la suñu borom xam loolu xam xam xamal lu jëm ci wàllu wér yam yaram kon duñ mën lu dut topp leen te mooy diggante jëfandikoo gel yi jëfandikoo masque yi ak yu ci bare bari ba gis nañ boo xoolee rek événement bu mag bi màggalug Tuubaa day am ñu dajaloo def li ñuy def waaye li ci ëpp mooy so solo rek mooy dellu gi ñuy dellu ci yàlla ak sellal gi spiritualité bi dafa mel ni mooy méthode bi gën a efficace boo xoolee murid yi malgré situation sanitaire yi li muy métti métti teewut ñoom seeni activité day wéy liñ bëgg a def danañ ko def te danañ jéem a def le minimum ngir respecter li nga xam ne moom lañ leen moom lañ leen moom lañ leen digal donc kon foofu ci wàllu crise boobu nga wax da ngay gis ne yoonu murit moom non seulement défendre l'islam non seulement taxawu l'islam ba nga xam ne mooy sha'air yi wala bokk ponk yi du du du laal suuf waaye tamit boole ci jëfee jëfi zahir joo xam ne danañ mën a saafara façon crise boobu nga xam ne moo fi am ak yeneen yi nga am yëpp tamit noonu lañ koy noonu lañ koy doxalee sëñ Mutalib jërëjëf Cheikh Abdoul Khadir ci leeral yoo am solo yooyu ci lu jëm ci wàllu crise sanitaire bi nga xam ne moom la ñuy dund. Ah. mel ne ci biir wax ji leeral nga ñu lan mooy crise sanitaire bu ñu ko waxee. Ah. wala crise rek man mooy lépp loo xam day andil gàllankoor dunduk doomu aadama. Ah. wala dunduk eh, li nga xam ne moo nekk ci kaw suuf lépp. mën na nekk loo xam ne lu nit di dund la wala lu nekk ci alam bi lu mën doon rek. bu ci amee crise eh, boo xam ne day gàllankoor dunduk doomu aadama lu lañ tuddee crise sanitaire. Mhm. bu ko defee leer nga ñu tamit ne ndekete crise sanitaire nekkul lu bees luy am ci àdduna bi. Mhm. yàgg na ab jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ci jamonoy Cheikhul Khadim. Mhm. leer nga ñu taxi yi nga xam ne moom lañ ci amoon. te ba ci gën a fees rek mooy Serigne Touba bi bi mu xew bi loolu lu mel mbas mi xewoon lam lam lam ci jëfandikoo rek mooy delloo nit ñi ci gëm yàlla gu dëggu. te loolu tamit leeral nga ci biir wax ji ne moom la Cheikh Mountakha dellu ci war ci jamono yi nga xam ne moom la ñuy dund. Mm. ci donte ne àdduna bépp jaaxle nañ. Mm. lu ne def nañ ko ngir indi ci ay solution waaye moom solution bi mu gis ne moo gën a efficace daal mooy. Mm-hmm. dellu ci gëm yàlla delloo lépp yu mbir mu nekk ci ci loxo yàlla. Mm. loolu dàqonte wu rek jëfandikoo li nga xam ne moom la ñuy wattandikoo li kër docteur yi digle ci lu ñu war a wattandikoo muy jàpp rek ci asbaab yi. Mm-hmm. daal delloo nag lépp ci loxo yàlla. Mm-hmm. tamit ne bi mu bi mu ñëwee tamit day baax ci crise yu mel nii. Euh, comme ni ko Cheikh taxaa defee bu amee ñu delluwaat ci li nga xam ne moom la li ci lislaam jàngale ci wàllu sharia mhm. euh, bañ a bàyyi li nga xam ne moom mooy jaamu yàlla gi fexe ba garder ko waaye defe ko noo xam ne tamit du du andi lor mhm. euh, jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu boo ko defee crise bi ñu bi ñu dund tamit li ñëpp xel yëpp li ñu xalaat mooy dana indi crise économique boo xam ne moom la ñëpp tiit lool mhm. ñëpp ragal ko di ko daw crise économique boobu ñi nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy xaar. Mhm. ndax jàpp nga ne lu war a mën a am la ak bu amee lan la ci. Mhm. yoonu murid war a taxawee ngir mën ci andi solution. Mhm. ok jërëjëf sëñ Abdou kon mel na ne crise boobu ñu doon wax ak taxawaay bi nga xam ne moom la ci yoonu murid am te muy loo xam ne naka jekk euh, noonu la noonu la yoon wi baaxoo doxee bii nag day boo xam ne crise sanitaire bu ñu ko waxee mën naa jur yeneen crise yu bare bare bare bare loolu nga tudd ci la bokk mooy crise économique donte crise économique yàgg naa am moom it ci ci ci àdduna euh, nga xam ne lu beru lay doon du ànd ak leneen waaye bu dii moom li ci garaaw mooy day indiwaat yeneen te it effectivement xam nañ ne buñ sukkandikoo ci information yi ñu am ci adduna euh, bi mooy mel na ne gis nañ ne feeñ na bu baax a baax a baax a baax a baax ci li nga xam ne mooy liggéey bi mooy liggéeyub liggéeyub doomu aadama yi wala doxalinu àdduna bi rek ci tënk ndax boo xoolee ñun ñi ñëpp ba ci suñ barab yi ñuy yëngu da ngay gis ne loolu daf ciy feeñ da feeñ bu baax a baax a baax maanaam da ngay gis ne li daan dox daawut day day wàññeeku waxtu yi nga daan liggéey dañ koy dañ koy kii dañ koy dañ koy wàññi naka noonu tamit yu baree bare daal ci secteur yu mel noonu da ngay gis ne feeñ na ci léegi nag su boobaa tamit li ma waxoon léegi rek crise économique tamit mel na ne mas naa am yàgg naa am gis nañ ci misaal bi nga xamee ne franc franc CFA bi daanu na gis nañ taxawaay bi nga xam ne moom la ci yoonu murit amoon mooy lan yëkkati alal yoo xam ne dañ koo participer ngir économie bi jugaat léegi nag su fekkente ni bii fii ñu nekk nga xam ne ci jamono jii gis nañ ne crise sanitaire bi jur na crise économique su boobaa kon méthode bi nga xam ne moom lañ ci moom lañ ciy jëfandikoo rek mooy delluwaat ci njàngaleem njàngaleem sëriñ bi mooy lan mooy ñu xam ne économie suñ ko waxee mooy loo xam ne euh, la nga ca jublu rek mooy fàggu fàggu lu lew loo xam ne sa wërsëg euh, fala ko sunu borom di jaare loolu nag la ci am solo rek mooy nga xam ne wërsëg moom yàlla moo koy joxe te lépp lu yàlla bind na danga ko am loolu da ko am waaye nag bu fekkente ne bi nattu am na ci yu mel noonu tamit la ngay def mooy xool yow yi nga xam ne moom nga ci ci ngay yëngu li nga xam ne ci ngay yëngu ndax lii am na rapport ak euh, crise bi ñuy dund bu fekkente ne bi doon loo xam ne crise bi daf koy gàllankoor am na lu tee nag su boobaa nga seet beneen méthode boo xam ne mën nga caa yaxantu ndax boo xoolee euh, li crise yi di yaatu li muy métti métti am na secteur boo xam ne teewut mi ngi doon dox donte laal na ko waaye teewut mi ngi doon dox ci misaal boo xoolee lu mel ne mbay mi boo xoolee lu mel ne commerce bi te dafa mel ne boo xoolee yoonu murit ñoom naka jekk seen yëngu yi ëpp ci ci diggante yooyu ci diggante yooyu lay nekk te loolu mooy loo xam ne rek dina la mën a motiver ba ngay yëngu ci loo xam ne di nga ci mën a sàkkoo loo xam ne lu lew lay doon ndax day mel ne sëñ Tuubaa moom li mu li ko ñor ci activité nit ki mooy nekkut am am bu bari bu ñuy dajale waaye li ko ñor rek mooy am loo xam ne dinga ci mën a di nga ci mën a suturlu di nga ci mën a sàmmee sa ngor loolu mooy wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin sàkkulu lew googu nag bu jamono demee ni mën naa mën naa metti mën naa metti waaye la ci am solo rek mooy nga nga jëfe ngay jëfandikoo wala boog ngay ngay ngay ngay yëngu ci loo xam ne leer na ne lii boo dee crise bi da koy gàllankoor nga xool beneen beneen beneen wala boog nga xool beneen façon liggéey boo xam ne lu provi provisoire lay nekk beneen bayit ba ca topp mooy loo xam ne ab ab dimbalante lay nekk dimbalante ndax bu jamono tolloo fii kenn ku ne xam na ne économie bi day daanu waaye teewul am na ñoo xam ne mën na loo mën nañoo jàppale ñenn ñi te loolu dañuy gis na it moo am ci saafara si nga xam ne saa su ne yoonu murit daf koy indi ci lu mel nii su amee mooy ki ki am ki am ñaar wàññi bennam jox ki amul dara wala boog ki am ñett jox ki am ki amul dara wala ki am benn xeet yu mel noonu su ko defee day mel ne delluwaat ci dimbalante dimbalante ak tamit euh, jàppalante ci wàllu xalaat ak ci soppi jëfin dina tax euh, lu baree baree baree bari mën saafarawu te gis nañ ne tamit yoonu murid posé na acte yu mel noonu ndax boo xoolee crise économie li muy bari bari bari ci biir crise sanitaire bi daaw ak daaw jéeg yëpp teewut daa nañ dégg saa su nekk ñuy dégg ne kër masala ñu la la daaru salaam joxe nañ nàngami millions yoo xam ne ak fii jamono toll da nga xam ne lii yo yombut jekk-jekk ñu ne la Baay Faal lay joxe nañ nàngam ñu ne sëñ bi am na projet boo xam ne nàngami million la yu mel noonu kon loolu la cee kii rek mooy ñu xam ne yàllaay joxe yàllaay xañe waaye nit ki tamit li muy li muy jëf li muy yëngu lum néew néew la ci am solo rek mooy bu ñu boolee bu ñu boolee suñuy force rek su boobaa mën nañoo bañ a yëg sax ne crise am na fi te loolu lañ gis ne moo nekkoon saafara si nga xam ne saa su ci nekk yoonu murit dañuy am taxawaay boobu ci eh, jéem a saafara xeeti xeeti crise yooyu nga xam ne dafa jëm ci wàllu iqtisaad yi ak xeet yu mel noonu. Euh, jërëjëf Cheikh Abdoul Qadir ci leeral gu am solo googu lu jëm ci wàllu crise économique bi nga xam ne. Mm-hmm. jàpp nañ ne day ànd ak crise sanitaire bii ñu nekk. Mhm. leeral nga ci yu am solo muy eh, yiñ ci mën a taxaw rek jàpp ko bu baax mooy. Mhm. lañ ci mën a eh, gën a génn mooy ñu delluwaat ci dimbalante gi suñu mhm. biir. dañ koy delloo tam ci seexul dunduk seexul xadim dañ ko leeral bi crise amee français fa bi daano nañ ko taxaw woon loolu mooy dimbali dimbali rek askan wi ngir ñu bañ a ñu bañ a dund lu lu métti ba ci wàllu dund gi tamit noonu la ci kiyee ñoo xam ne xëy dañuy am jafe-jafe dund dañuy xool ne Cheikh Mouhamadul Mountakha def yëkkati loo xam ne ab dund la jox ñi nga xam ne dañoo néew doole joxe ndigal kenn ku ci nekk koo nga dimbale jàpp naa ne loolu saafara la soo xam ne suñ suñ suñ ko wéyalee rek dinañu dimbale ba mën nañoo bañ a yëg crise économique boobu su boobaa jërëjëf waaw gi am na solo lool kon mooy liñ ci mën dimbal di mooy ñu delluwaat ci dimbalante gi suñu biir kenn ku nekk ku tane nit mhm. na ko tanee moo xam ci alal la moo xam ci dund la ci xam-xam la ci xel mu rafet lépp nga dimbali ko ca bam mën a génn ci crise boobu nga xam nañ ñu bari yaakaar nañ ko. Euh, doole ci nag rek yoonu mu murit yàgg naa dund crise waaye teew teew teewu ko doxal ay projets yi nga xam ne moom la moom la sumb. delloo ko ci Cheikh Cheikh Cheikh Moustapha. ba ak si fii jamono ji ngi toll. Mm. ak lu ci lu ci mën a jamono jum lu mett métti teewul projet yi nga xam ne mooy taxawal day dund loolu li ko dugaral mooy. Mm-hmm. gëm yàlla gu dëgër ak nangoo liggéey. loolu mooy mooy ñaar yooyu. Mhm. kon bu ñu jugee ci loolu rek mooy euh, crise yi tamit am nga crise économique bu amee rek mën naa jur. Mhm. Euh, jikko yu yàqu. waaw ndax mhm. euh, ñàkk moom lu ne lay mën li mën a jur. te jamono ji mel ne gis nañ ne crise yi nga xam ne moom mooy asma axlaaqiya am na lool. ci domaine boo boo jël rek ci côté yëpp. ci wet yëpp foo xool rek da gis ak yàqute gu mat goo xam ne bari na lool. Eh, lu mel noonu nag bu amee yan yan solution lañu xaar ci yoonu mm-hmm. murit mu mm-hmm. taxaw si ngir mën a indi ay solution ci lu mel noonu suñ mm-hmm. jile macha allah kon euh, suñ ci ñëwaatee ba tey ci yu mel noonu day am te it euh, mooy crise des valeurs loolu moom mën nga ne daanaka mook mujjug jamono ñoo ànd ndax buñ xoolee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay ahadis yu mu wax ak euh, alerte yu mu daan def daan ko wax ak saxaaba yi mel na ne daan na leen bàyyiloo xel ne mu jug jamono lu bari lu baaxoon dina bon te eh, jikko yu jikko yi tamit dana soppiku jëm ci wet gu baaxut te loolu gis tàmbale nañoo gis li tubaab naan germe maanaam eh, maanaam meññet wala bokk luy wane ne yooyu yonent bi doon junj mi ngi tàmbalee feeñ tàmbalee feeñ sax bay feeñ foo xam ne xëy na nag fooge foogeewuñ leen ko woon ndax naka jekk dañoo doonoon ñoo xam ne dañ leen a xamoon ci ak mbaax xamoon leen ci diine xamoon leen ci jëflante bu rafet yooyu yëpp nag ñu tàmbalee gis muy feeñ ak boo xoolee xadis jibril boobu nga xam ne ca mujj ga laaj na ko kañ la saa di taxaw yonent bi junj na ko fa yoo xam ne ay màndarga la buñ demee ba euh, ab jaam jurub sangam ci la bokk ñi gënoon a ñàkk buñ demee bay sut ëppalante ci alali àdduna wala ay tabax yu mel noonu te yooyu yëpp nag dañuy gis ne day ñëw ci mujjug jamono kon loolu day wane ne rek saa waxtu saa day gën a jege saa su ne léegi nag xëy na nag bu situation yi mel ni amee mën naa gën a mën naa gën a pire mën naa gën a mën naa gën a aggravé wu su boobaa dafa mel ni sax boo xoolee sëriñ bi ci boppam lii ma doon wax ci njalbeen gi ak ñëwam sax dafa mel ne lool loolu la ci jublu woon mooy fexe ba nit ki defaru ndax bu defaru amee rek su boobaa euh, nit ki dafay am référence bu amee référence day dellu ca moom te bu dee dellu ca moom su boobaa crise des valeurs bii ñuy wax mën na cee mën na cee mucc euh, da ngay dégg sëñ bi naan wahab lana makaarimal ma maa taxaabu bin bila shiqaaq dafa mel ne makaarimal axlaax nag loolu mooy contraire moo lay sauver ci crise des valeurs boobu ngay wax te loolu ci ni muy amee mooy nit ki defaru kon day mel ne sëñ Tuubaa ngir mu fexe ba loolu du am mooy daf leen a tarbiya kon day mel ne tarbiya mooy méthode bi nga xam ne moom la yoonu murit indi ngir ñu éviter ngir ñu mucc ci loolu ñu tuddee crise des valeurs waaye ban façon tarbiya mooy tarbiya bi nga xam ne moom la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digaloon mooy tarbiya bil himma rabbi ashaabaka bil himmati wala turabbihim bi dars te loolu mooy lan mooy loo xam nit ki egg foo xam ne ci xolam ak ci xalaatam lépp lu muy def daf koy def ngir yàlla waaye àdduna du ko tax a jóg lépp lu mu am ci àdduna it day doon loo xam ne yóbbal la bu muy jëfandikoo ngir réussir ëllëg ëllëg yow mar xiyaam mooy lim nan axastu min duniyahu zaadi lil janaan nga xam ne loolu loolu rek lay jëriñ léegi nag euh, nit ki nag ngir mu am mucc ci loolu ngir mu mucc ci crise des boobu mooy kon faw mu am ku ko ku ko gide ku ko gindi gide ko teg ci yoon teg ko ci yoon woo xam ne mooy yoon wi sunu borom gërëm teg ko ci yoon wi nga xam ne mooy yoon wi nga xam ne mooy tax mu am mu am yàlla sunu borom loolu moom la fi sëñ Tuubaa moom la fi sëñ Tuubaa indoon bi mu ñëwee daf dafa fekk ay mag yoo xam ne jàmbaar lañ lool am luñ bëgg ci seen borom maanaam moom dafa ma jël la sax maanaam euh, bëgg-bëgg yu yu yu yu yam yi donte nit ki mën naa bëgg loo xam ne lu baax la lu kii la waaye daf lay defar def daf lay defaree defarin woo xam ne yow dangay ngay rëy bët maanaam dootoo dootoo bëgg lenn loo xam ne lu suufe lay doon lépp lum doon rek boo ca nekkee la ca gën moom nga moom ngay sàkku nit ki nag su àggee foofu moom kon su boobaa dana sori lépp loo xam ne day nuru crise des valeurs donc kon moom dafa mel ne defar na génération boo xam ne génération bi mel nañ ñi nga xam ne noonu la noonu noonu la yàlla bëgg ñu mel ne mel nañ melokaan wi nga xam ne tamit mooy melokaanu jullit dëgg léegi nag ñooñu buñ demee ba yàgg buñ demee ba yàgg mën nañ leen a fàtte ak it euh, melow jamono tamit mën naa soppi yu baree baree baree bari su boobaa tamit la cay baax kon mooy indiwaat euh, njàngalem Cheikhul Xadim maanaam indiwaat li nga xam ne moom la digle ci ay jikko masalan jàngalaat nit ñi lan mooy nax naxju jàngalaat nit ñi masaalikul jinaan jàngalaat nit ñi tasawudu sixaar nga xam ne boo xoolee loolu rek di nga comprendre moom méthode bi nga xam ne ci la doon ci la doon yaree méthode bi nga xam ne ci la génnee woon aw ñoñam ci crise ba xewoon ci jamono jooju ba yóbbu leen ci makaarimal makaarimul axlaax ndax bu dee jamono ji mooy jamono ji gën a ji gën a dangereux te man mën ngaa wax noonu ndax dafa am ay ay ay ay jéng yu baree baree bare yoo xam ne moo ñu téye te yooyu c'est facile lu yomba yomba la nga glissé ci ba euh, mel melokaan woo xam ne melokaan wu gënul la manees na cee tudd tey boo jëlee euh, liñ naan technologie de l'information et de la communication muy ñu toll jamono joo xam ne tey jii boo xoolee jikko yi lislaam gën a ŋàññ gën ko gën koo gën ko euh, sip fi mu nii mooy jikko yi gën a yomb mooy li gën a yomb ci doomu aadama mooy sax li gën a yomb ci nit ñu baax ñi fi mu nii ndax li leen ko may mooy dafa am lu leen sori woon loo xam ne dañ leen koo jegeel tey bu ma jëlee cas boobu may wax ci wàllu technologie boobu léegi technologie dafa egg foo xam ne dafa ñëw nekk paaka ñaari boor bari ay lor bari ay bari ay njariñ waaye nag day mel ne lor yi mooy gën a not toujours ndax day loo xam ne ñi ko ñi ko sos ñoom biñ koy sos bàyyiwuñ la xel yow taalibe bi ñoom dañoo sos loo xam ne rek ñoom nim leen nim leen juboo noonu lañ ko defee léegi nag yow taalibe bi nga war a ñëw jëfandikoo jumtukaay yooyu bu boobaa nag bu fekkonte ni bii amoo ab delluwaay bu wér su boobaa nga dugg ci loo xam ne lu suufee la day yomb ci yow ñu sosal la loo xam ne ay réseaux sociaux la loo xam ne dangay day jàppane ci yow nga jekk-jekk wax léegi mel ni mbir moo xam ne mën naa mën naa mën naa tasaaroo ci àdduna loo xam ne tey jii lu yomb yomb la nga yàq ci derub nit yàq àddunaam ba faw loo xam ne lu yomba yomb la ngay wax ak nit di jëw yomba li gën a yomb tamit mooy sa temps bi yëpp boo amoon vingt quatre heures yi mën nga ne vingt heures yëpp ci nga koy passé nga xam ne yow jaamu yàlla gu jaar yoon sax julli yu juróom sax ngir nga respecté ko jafe-jafe lay doon donc kon yooyu yëpp nag ay crise la yu boo xam ne fi ñu toll nii dañ koy dund ci jamono ji mu metti lool te it ñëpp di jànkoonte moom su boobaa nag la cay la cay la cay saafara si mooy rek ñu delluwaat ci xool sëñ Tuubaa lim lim diggal taalibe bi tey mën naa cee joxe misaal ci bi mu mujjee wax lim diggal taalibe bi mooy xamal ñu ne ab murit dafa war a doon ibnu waqtihi maanaam murit warta am jot ñàkk jot ga la koy waral mooy day doon koo xam ne daf toujours dafay nekk ci li li ko yàlla digal di bàyyi li ko yàlla tere ba noppi nag di di góor lu ci loo xam ne mooy tax mu am lu lew li nga xam ne moom lañ doon wax sànq ci crise économique bi don kon day mel ne buñ delluwaatoon ci mbindum sëñ bi te buñ xoolee it euh, sëriñ bi lenn lu ci nekk wax na ca melokaan bi ñu war a melowaa masalan bu fekkente ne bii sa comportement bi nga war a am yow yow taalibe bi sa digganteeg doomu aadama nga xam ne ñett donc lañu doon ki mag ki nga mag ak ki nga maaseel mu ne ki mag da nga koy wekk ki nga mag da koy yërëm ki nga maaseel da nga koy def ni sa bopp donc kon loolu day mel ne bu fekkonte ne bii doxee nañ ko jàpp naa ne crise valeur valeurs mu ngay wax du am beneen bi nga xam ne it saafara la ci mooy defar na aw nit yoo xam ne kenn kuñ ci jëloon waxtaane ko na mu mel waxtaane ko na mu mel waxtaane dëgg-dëgg mooy kan wan ko ndaw ñi jàpp naa ne dina dina doon loo xam ne dinañ ci mën a dellu ndax nit ki moom buy mbir leeree ci moom rek dellu ci dana dana yomb beneen bi moom mooy façon communication bi loolu lépp ci jafe-jafe yi ñuy dund la bokk façon communication bu dee ci yoonu morit dafa mel ne am na ñoo xam ne ñooy gën di wax ñoom la ñuy bàyyi gën a bàyyi xel am na nu ñuy waxee te xëy na seen présentation yooyu ñuy def mën naa bañ dëppook dëppoog dëgg dëgg dëgg lii tax jikko koy soppi ko ndax xëy na amaana am na ñoo xam ne nañuy waxee jubluwuñ ci dëgg-dëgg laa biire wala wax lu baax waaye xëy na dañ cay jublu luñ ci dañ cay jublu rek luñ ca amee wala loo xam ne mooy mooy mooy yéwénal seen seen seenu dund amaana it xëy na xam-xam bu leer dëgg boo xam ne danañ ko mën a waxee dana dana des donc yooyu yëpp nag su amee ngir sop soppi gi day jafe waaye éléments yi moom mi ngi fi sëñ bi teg na ko fi léegi nag li ci des mooy jëfandikoo ko jumtukaay yooyu ñan ñoo koy war a jàllale ak naka lañ ko war a jëfandikoo ak nan lañuy fexee ba mu àgg ci ñi nga xam ne xëy na comprendre wuñ làkk wi nga xam ne moom la sëñ bi doon jëfandikoo muy làkku arab wala boog ñi nga xam ne mënuñoo leeral waxi sëñ bi waaye bu waxi sëñ bi leeree daal jàpp naa ne crise des valeur boobu ngay wax saafara yi yëpp mi ngi ci mi ngi ci am mbindam léegi nag jottali gi moo ci des. Hmm. Euh, jërëjëf Cheikh Abdoul Khadir ci leeral yi nga xam ne indi nga ko ci. jafe-jafe yi nga xam ne mu ngi dund ci jikko yàqu yi ci jamono yi ñu toll. mel na ci biir wax ji rek tàmbali nga leeral ci ne jikko yi ñuy yàqu yi ñuy dund jamono ji day nekk loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dundoon na ko ci ne dana am ci mujjug jamono. Mhm. waaye leeral nga tamit ne li li ñu ciy mën a génn rek mooy nit ki am royuwaay. Mhm. royuwaay mooy li nga xam ne mënul ñàkk am royuwaay boo xam ne bu mat royuwaay mu topp ko loolu dana ko dimbali ci jafe-jafe yi ñuy dund. leeral nga tamit ci ne mënta ñàkk tamit li nga xam ne mooy delluwaat ci tarbiya te mooy ñàkk delluwaat ci njàngalem Cheikh Khadim ci jafe-jafe mel nii te loolu mooy li taxoon Cheikh Khadim ñëwoon mooy wax nga ci tàmbali waxtaan wi mais fekkoon mu ay jikko yu yàqu liñ daan def ci lu baax dañ kaan def ci anam goo xam ne anamuk folklore lay doon mm. kenn ku ne di wane ne yaa yaa man yaa ëpp xam-xam mm. am melokaan yoo xam ne moom la ñu xamee ku mokkal alxuraan wala ku fóore yëpp ñu ay melokaan yoo xam nekk doon luy accès lal daal mm. sëriñ bi ñëw andi yar ni ñi ci yitte ju kawe ak ki seel ak ki seen i jëf leeral nga tamit na ci bokk na jafe-jafe yi ñuy yi ñuy gis liy jur e, jikko yàqu yi mooy ñiy wax ak ndaw ñi day am ñoo xam ne seen jubluwaay dëgg-dëgg du àggale message Cheikh Khadim waaye seen njëriñu bopp ma leen tax a jóg. loolu tamit day mel ne ci jafe-jafe yi la bokk. ma dellu rek laaj bu mujj bi nga xam ne laaj ci jotaay mooy. xam nañ ne tarbiya dañ kaan def ci daara yi. Mm-hmm. jamono ji nag mel na ne dellu ki daara yi jafe na lool. Mm-hmm. ban méthode nga jàpp ne buñ ko defoon euh, danañ kon tarbiya dana continuer ci nga xam ne amuñ jotug eh, yóbbu dem ci daara wala seen euh, yàkkamte ñu àdduna wala yu mel noonu. Mm-hmm. bañ man leen tarbiya ci anam gu gàtt ci tontu bu gàtt rek ci laaj boobu ñu mën a tëj jotaay bi. macha allah jërëjëf sëñ Abdou waaw loolu moom eh, boo xoolee àdduna day soppiku saa su ne te nee ñu euh, Sëriñ Tuubaa woon na bu jamono soppikoo ci lu naqariwul yàlla da ngay soppiku ànd moom lu ko mooy dana mujj Euh, dal sa kaw wala njett la suñ Cheikhouna Abdou dégg naa mu koy wax loolu mooy rek contextualiser day baax bu jamono changé euh, ci misaal bu njëkk da nga daan yorob àll yor fay dong isolé wu mu jàppandi lool ci yow nga am environnement boo xam ne yar daf lay yomb waaye léegi nag loolu lu ci baree baree baree bare soppiku na léegi nag su boobaa kon la cay am solo len lu doon lu doon rek da ngay xamal ki ngay tarbiya xamal ko mbir mi ba nopp ci misaal léegi tudd naa fi euh, mbirum technologie de l'information et de la communication da ngay gis ne dafa bari ay ay ay ay ay ay kii lu baaxut léegi bu fekkee daa bari lu baaxut yow nga am sa doom ne ko réseaux sociaux baaxut bu ci dugg wala nangam xeet mel noonu wala nga ne ko télé baaxut wala film baaxut mikke baaxut te yooyu yëpp mooy mooy jumtukaay yi ñuy jaare fi ne ba ci boo xoolee dessin animé yi ñuy seetaan ñi ngi ciy waajal xale bi am ñaari at ñi ngi ko ciy waajal boo xoolee li ci gën a fes masalan ci dessin animé yi loolu xam naa lu mat a bàyyi xel la mooy xale bi léegi dañ koy waajal xamal ko ne euh, nos maanaam question de genre maanaam nit ki bu ko neexee doon góor su ko neexee doon jigéen su ko neexee tànn li muy doon loolu fi mu ne léegi dafa tàmbalee am ci xeet yooyu léegi yooyu nag dama cee tudd lool rek yooyu yooyu yépp nag da nga koy xamal xaale bi xamal ko ne lu existe la xamal ko ne lu baaxut la mu xam ko waaye au lieu nga xëy rek tere ko ko bàyyi xeet yu mel noonu ndax comme ni nga ko waxee léegi tarbiya amatut wala am wala bareetut boobu soxna bareetut nam daan nam nam nam daan nam daan bare te efficacité bi tamit wàññeeku na kon su boobaa dañuy créer yeneen méthode mooy méthode de yar beneen bi mooy bu dee ci murit gi boo xoolee lu mel ne ay daayira am na. daayira boo xoolee méthode la boo xam ne daf doon daf doon wuutu tarbiya gañ daan def ca ca ca ca ca àll ba waaye nag daayira ci boppam léegi dafa mel na am na ci ay jafe-jafe am na ay crise yu ci am donc kon li ci am solo mooy ñu delluwaat ci bu ñu xoolee euh, sëñ Cheikh Fatma masalan bu ñu xoolee texte bi mu bindoon ci daayira yi njëkk a am na ay xaanuun yu mu ko tëraloon yu mu ko tëralal noo xam ne jàpp na bu ci doxee dina baax léegi ñu delluwaat ci lan mooy daayira ak lan mooy njariñam su boobaa danañ gis ne daayira bi kat nit ki bu fi ñëwee dina xam diineem te nit bu xamee diineem rek lu bari dana ko yomb dana xam diineem dina xam sëriñ bi dina xam li ko sëriñ bi defloo donc kon nga gis ne lu mel ne daayira méthode la boo xam ne mënees na cee jaare ngir tarbiye nit ki ba mel ni ni mu war a mel boo xoolee tamit lu mel ne jumtukaay yi ñuy jëfandikoo man nga cee jàngal nit ki man nga ko cee xamal beneen ba it mooy fexe ba lii fi sëriñ bi indi ñu exploité ko masalan xam nañu sëñ Tuubaa arab la daan bind lim daan bind lépp njariñe ci nekk te moom nee na am mbindam dafay tarbiya kon mbind moomu nañ fexe ba mu leer ci ba mu leer ci bopp nit ñi mooy lan luñ ci war a euh, tekki ci yeneeni làkk ñu fexe ba tekki ko ci yeneeni làkk ngir ñi nga xam ne amuñu accès ci arab bi ñu mën koo jariñoo ndax boo xoolee ci tubaab bi loolu lu yomb la ci ñoom da ngay gis benn bouquin bu ndaw ñu ne la lii masala ñu ne la Victor Hugo moo ko bind ne la traduire nañ ko ci cinquante langues wala nanga mi mel noonu te ku bind lu toll ne li sëñ tubaab bind amut ci àdduna donc kon kooku jàpp naa ne euh, ku yomb a présenté la ci kaw rek ñu man ñu mën a xam li nga xam ne moom la bind buñ ko xamee rek jàpp naa ne dina mën a yar nit ki dina mën a orienté nit ki ba nga xam ne dina mel melokaan wi nga xam ne moom la sëñ bi bëgg ba bu melul ne mag ñaat dina fexe ba mooy raw ak maasam daal. Euh, jërëjëf Cheikh Abdou Khadir leer nañ macha allah. mel na kay ci buñ ko tënkee rek mooy kon euh, war nañoo njëkkante ak euh, tubaab yi ci jumtukaayu xarala yu yees yi. ci lépp loo xam ne mën nañ cee jaare ngir mën a yar ndaw ñi teg leen ci yoonu njub. beneen bi mooy ci daayira yi nga xam taxawal nañ ko war nañoo gën a dooleel ñi nga xam ñoo yor wàllu xam-xam bi. Mhm. ngir ñu gën a mën a liggéey ci côté boobu bu nit ñi ñëwee jotaay bi la mu gàtt gàtt ñu jox leen bind. bu ñu mën tëral jàngal leen tamit ñu xool méthode bu ñu leen jàngale ndax loolu mooy mooy tax ñu mën a am euh, yóbbal bu mat bu ñu mën di yóbbale. Hmm. kon sa njiili bu ñu <coughs> gàttale fa waxtaan bi rek ñu jox la nga. Hmm. Euh, jàllale say kàddu yu mujj ci jotaay bi. macha allah ñu mën a bi. Hmm. jërëjëf sëñ Abdul Muttalib kon fi ñu koy daaneel rek mooy santaat yàlla bu baax ci liggéeyub sëñ Tuubaa bi nga xam ne boole ngeen ñu ci te it euh, di ñaan yàlla ñu egg ci bisub Seexul Xadim beeg jàmm. te it lépp luñ ci def rek sunu borom nangul na ko sëriñ bi nangul na ko di sant bu baax euh, ñi nga xam ne ñoo ñu doon topp ci chaîne mosquée de grande mosquée de Touba ak fu ñu fi mën a nekk di jagleel am nuyo ak ziar ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew tey bis bi saa su ñëwee ñu koy dund ak ak ñun ci di topp yi nga xam ne plateforme yi existé ci yoonu murid yëpp euh, donte fañ nekk sori na xëy na sori giit it na. waaye xëy na loolu la leen sunu borom nattoo waaye la am solo rek mooy dundal bis bi rek moo ci am solo mooy mooy koo xam ne xëy na lottu nga ngir mën a ñëw fii fa nga nekk rek nga dundal ko moo xam ci biir réew mi la moo xam bitim réew la euh, amaana euh, màggal moo ëpp solo donc kon bu kenn ku nekk amee yéene màggal te defee ko ni ko sëriñ bi bëggee rek jàpp naa ne la ca sëriñ bi dig rek ko am noo ngi leen di jégalu lu baax salaamaaleykum wa rahmatullah waaw euh, jërëjëf sëriñ Jili ñu ngi lay dellu di la siyaar di la sant bu baax ci turu daayira Moukhaddamatoul Khidma ci nangu gi nga xam ne ak jàppandi nga xam ne jàppandi nga ko ci jotaay bi di la sant bu baax di ñaan suñu borom barkeel xam-xam bi leeral làmmiñ wi gën a yokk wér gi yokk fan yu baax a baax di sant mboolem ñi nga xam ñoo doon topp ci seenu euh, Moukhaddamatoul Khidma TV di leen sant di leen siyaar bu baax a baax di leen jox rendez-vous rek incha allah suba ci beneen jotaay boo xam ne dana am. ci waxtu wi ci eh, fi place bi di ñaan rek ñu àgg ci bis beeg ak jàmm dundale ko ni ko Cheikh Khadim bëggee day gisee ngërëmam barke Cheikh Khadim. وفي كل شهر زيد ربحي وفي صفر صباح في إخدام خير صباح في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي صفر